di julli ci ab yonente muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nañ beneen yoon ci doon keppaaru xam-xam ci bindab tafsir al qur'an al azim fi shahri ramadan al mubarak tey mi ngi tombeek fukki fan ak ñeent ci shahru ramadan tombe ñu jeexal suratu ibrahim wara tabbi ci suratu raad saar wi di suratu raad ci saar yi wàcc màkka la bokk borom bi tabaraka wa taala mi ngi wax ni audu billahi min alsheitan arrajim بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون juróomi laay yooyu mooy sunu bindab tafsiru tey di tàmbali suuratu raad muy saar wi nga xam ne sunu borom tabaraka wa taala mi ngi ko tuddee yëngu maanaam yëngu suñu demee ci waxtu nawet am na lu ñuy tuddee taw am lu ñuy tuddee melxat am lu ñuy tuddee yëngu melxat xeetu lumière la boo xam ni bu nee xàyyi bu fekkoon nu nekk ci lëndëm la ne sa kanam lépp da nga koy gis te léeg-léeg day ñëw ci anam wu raglu yëngu it kadalika ay xeeti yëngatu la yoo xam ni nopp daloowut benn yoon yëngatu yu ko gën a foor yëngu la yoo xam ni nopp ci àdduna yëngatu yëngatu yu ko gën a foor yu bàyyi ko ci asamaan sax nga xam ni saa saa sax mën naa tiital ay nit melxat yooyu saa saa sax mën naa faat nit moom la sunu borom di junj ci suratul baqara di wax naan فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين borom bi tabaraka wa taala mooy seet lu ko soob tuddee ko aw saar comme ni mu ko sañee ci téeréem bu tedd bi moo tax saar wi mu tuddee ko suuratu raad nga xam ni yëngatu yooye yu foor la yoo xam ni am na ay mbir yu ca am yoo xam ni kéemaanu suñ borom la yaakaar naa ni balaa saar wi jeex dinañ ko tudd insha allahu taala saar wi ci saar yi wàcc makka la bokk mooy fukkeelu saar ak ñett boo jógee kaw ñeent fukki laaya ak ñett moo ci nekk juróomi laay yi nekk ci xët bu njëkk bi mooy sunu bindab tey sunu borom tabaraka wa bu ngeen seetloo ci saar yi wàcc màkka li ëpp dafay leeral ay yëf yuy tax ki gëmul woon yàlla war man fa jaare gëm yàlla waaye ki gëmoon yàlla ba noppi ngëm yàlla am gën a dëgër gën a baax ndax ay xeeti melokaan lay waneel suñ boroom ak xeeti jëf yu ànd ak kàttan yoo xam ni boromam xel mu ko dégg da nga xam ni lii moom dëgg dëgg dëgg kenn moomu ko kudut yàlla lii daal dëgg dëgg kenn mënu ko kudut yàlla lee daal dëgg dëgg kenn sañu ko kudut suñ borom yooyu xeeti yëf yëfaan wa yazdaad alladina amanu imaanan maanaam ki gëmoon yàlla te bëgg ko yëf yëfaan yooyu da koy gën a yokk imaanam waaye day tax mu gën a bëgg suñu borom tabaraka wa taala moo tax suwar yi nga xam ne mooy suwarul makkiyaat yi boo ko seetloo lim dëxëñ ci wàllu pas-pas moo ëpp <coughs> lim dëxëñ ci ayatul ahkam ayatul ahkam mooy nii ngay sangoo set ku jàpp def nii ku rey nit ñu def la nangam riba bu leen ko lekk bu leen def nangam xeeti àtte yooyu moom la ñu tuddee ayatul ahkam yooyu boo ko seetloo ba ci biir ci saar yi wàcc madina ci la ëppee li ko waral mooy bi ñu nekkee màkka fexe ba nit ñi dëgër ba foo leen yóbbu ñu yóbbaale seen pas-pas boo leen di faat ñu faatuwaale ko loolu moo nekkoon yitte ji moo tax boo seetloo aayatul ahkaam mi ngi ëppee ci saari màkka yi waaye aayat yi nga xam day dëgëral pas-pas moom mi ngi ëppee ci saa saari màkka yi ahkaam yi ëppee ci saari madina yi borom bi tabaraka wa mu ni alif lam mim loolu gayra ci saar yi weesu ci suurtu ibrahim ak ya ko jiitu ya ko fare kaw yi ko fare suuf la ca ñëw ci ay xaraf sunu borom di ko tàmbalee saar moom lañuy tuddee saar yi tàmbalee alxuruful muqattaa mooy xaraf yi nu daggat léeg-léeg nit ñi danañ ci jéem a bari ay man-man di wax alif ji nangam lay tollal boo ko chiffré laam ji nangam laam nangam di wax ay wax waaye yooye wérut wér mooy waxuma ni alif tekkiwut nangam alif am na lu muy chiffré moo tax boo seetloo xaatimkat yi au lieu que ñu ñëw bind saw tur mbaa ñu dee dañuy xool saw tur boo tuddoon Muhammad ñu ne miim nangam lay chiffré xa nangam ñu bind loola ay chiffre rek la ñuy bind moo tax boo seetloo xaatim ay cadre nga ciy gis ñu ciy def loolu waxuma loolu loolu wér na ni nangam ji nangam lay tekki loolu tekki waxuma loolu waaye nag bëgg ba tax ñu bëgg indi ay atte yu bees yoo xam ne saxaaba yi xamuñu ko woon ci bañ doon tekki alquran la ibni kathir waxoon ci suratul baqara te mu baamu ko fi ay yoon mooy aw bakar ak omar ak osman de ak saxaaba yu mag ya ay nii lañ ko doon jàngee daawuñ ci jéem dara lu dul xam ne lii daal li muy wane mooy alquran daal mi ngi def li ñuy tuddee i'jaz mooy tëleloo nit ñi wan leen di leen kat ci arab yu mel nii ci la suñu borom të tëggee alquran te ba léegi nit ak jinne buñ dajaloon mënuñoo tëgg lu ni mel yàlla mooy ki gën a xam lam ca namm waaye daal mi ngi wane ni borom kattan dëgg dëgg dëgg moo alxuraan ji ndax baat yi mu ko tëree dong lay wane nii te ba léegi kenn mënta def lu mu mel sunu borom mu ni tilka lii ngeen nar a gis aayatul kitaabi mooy aay yi nekk ci téere bi tilka ji damir ji boroom xam-xam yi am nañu ko delloo ci suura bi ci saar wi ndax la cay firnde mooy li ci tegee walladi unzila ilayk ak alquran ji wàcc ci yow jépp kon leneen lu dul saar wi dugg na ci kon tilka aaya yi ñu nar a firi tey ak yi ci nar a topp sunu borom mu ni ayatul kitaabi mooy aay yi nga xam ni moom moo tënk saar wii di suuratu raad والذي انزل اليك لسن بروم واتي يوم ربك مبايكو فسن بروم الحق برنني لول رك يدغ واو واو لول رك موي دغ غيس نين تي سوره الاسراء وبالحق انزلناه وبالحق نزل غيس نين تي سوره حجر ما ننزل الملائكه الا بالحق غيس نين تي جيخنت سوره الحجر لم فتي دون دي وانا ني مانام بير مي دغ لا ki ko wàcce mooy borom dëgg te lu mu wax rek loolaay dëgg moom suñu borom inna allaha huwa alxaqul mubin suñu borom mu ni tilka lii ñu nar a dégg ci ay laya mu ni ayatul kitaabi mooy aayay téere bi di saar wi ñu nekk waaye gëmal ni xamal ni walladi unzila ilayka li nu wàcce ci yow mu min rabbika te bàyyi ko ci sa borom alxaqu loola rek kay dëgg loolu rek mooy dëgg walakin na waaye aksara naasi li ëpp ci nit ñi laa yuminuuna duñu gëm xam ngeen yàlla waxoon na ko yonente bu ma aksaru naasi walaw xarasta bi muminin ak loo xër xër bëgg nit ñi baax li ëpp ci nit ñi ñoom duñ gëm yàlla wa ma yuminu aksaruhum billahi illa wa hum li ëpp ci nit ñi duñ gëm yàlla lu dul boo leen fekkee ay bokkaalekat la ñuy doon dañuy gëm yàlla waaye ña ngay def bokkaale te xam ngeen ni bokkaale moom ni deret di yàqeem soow noonu la yàqee say jaamu yàlla sunu borom mu ni walladi unzila ilayka li nu wàcce ci yow muhammad min rabbika te bàyyi ko fa sa borom xaq mooy dëgg xam ngeen ni ñu ngi ci weeru koor nekk ci weeru alquran alquran mi ngi wàccoon ci guddik laylatul qadr te laylatul qadr la ca gën a wér gën caa dëgër mooy day soppaliku soppaliku guy wër ci bis yu tool yi mën naa nekk fukk ak ñaar fukk ak benn ñaar fukk ak ñett ñaar fukk ak juróom ñaar ñaar fukk ak juróom ñeent la cay firnde mooy saxaaba yi kenn ku ci nekk wax nga tegtal am ñu àgg ba giñ te ci yonent bi lañ ko déggee la muy wane mooy ku nekk la nga xam te dégg ko loolu nga li te comme yonent bi fixé wul ab bis waaye dana ci bis yu tool yi la kon mën nay tourné ci bis yu tool yi at mii mën naa nekk ñaar fukk ak benn ndax am na at mu ko yonent bi waxee woon sallallahu alayhi wa sallam ba ni sunu borom wan na ma ko ci nelaw waaye fàtte naa ko ngir ñaar ñii ma doon jubale waaye daal li ma ci fàttaliku ci gént gi mooy dama fekk ma doon julli ci jàkka ji bi ma sëlmalee sama jëbi dafa tooy xepp taq ban saxaabi netti la xadis boobu nee na bis boobu mu ngi tombeek bisub guddik ñaar fukkeel ak benn te bañ yeewoo fajar dafa taw ba tooy kat bi yonent bi sëlmalee fajar jàkkaarloog ñun la mu waxoon ci gént gi gis nañ ko ci jëbi loolu moom jërut ñu naan lu muy firi loolu firi ne boppam saxaaba yu bari dañuy giñ ñi mi ngi nekk ñaar fukk ak juróom ñaar loolu leen yonent bi jàngal parce que loolu lañ xamoon kon loolu bokk na ci firnde yi weneen day tourné ca guddig laylatul qadr la wàcc inna anzalnaahu fi laylatil qadr inna anzalnaahu fi laylatin waaye nag ñu koy wàcce ci al àdduna di wàcc ci weeru koor kon weeru koor mooy weeru alquran te it nag moo taxit weer wi daal di gën ci weer yi shahru ramadan alladi unzila fihi alquran weer wu tedd ngi woo xam ne ci lañ wàcc alquran ab soñña ngoo ko joxoñ ngir ñeel ñu kenn ku ci nekk yaafus boo doon wane ci alquran bi ba boo nga daal di koy bàyyi te gën a góorgóorluwaat ci téere bi rawatina ci fan yii ñu nekk sunu borom ni allahu سين برم يالا الله اسم علم لا ترو يالا و ماغ لا و خامني دانكا ساخ موم ليك ليك من نانيو جيل او تور سي سونو تور سونو برام يي جامله كو اب جام تبا عبد الله عبد الله عبد العزيز عبد الغفور عبد الجبار عبد الشكور عبد الرحيم الى اخره واي الله موم دا تا xam ne moom wenn tur melut ni moom bokkut ak tur yi nga xam ne dañuy ànd ak i melokaan comme ñu naan ar rahman nga xam dafa ànd ak sifatu rahma al aziz nga xam dafa ànd ak sifatu al izza ila axirihi boo seetloo daanaka borom xam-xam dañuy wax ne baatab allah sunu borom baamu na ko ci alquran lu bare bare bare am na ñuy wax ni deux mille six cent deux fois sunu borom baamu na ko allah ci alquran xam nga loolu bare na de baatab allahu kese kese kese kese ñëw na ci alquran daanaka lu mat deux mille six cent deux fois deux mille six cent deux fois yooyu nag léeg-léeg day ñëw nekk marfuu léeg-léeg mu nekk mansuub léeg-léeg mu nekk majruur maanaam léeg-léeg ñu maas ci suuf léeg-léeg ñu mooy allahi alladi siraati allahi alladi hmm? ak allahi ja nga gisoon ci suratul ibrahim léeg-léeg ñu daal di koy maas fatxa ko léeg-léeg ñu maas ko damma damma ji comme ni ngeen ko gisee ci sar wi allahu sen borom yàlla mu magum te for bi alladhi moy ki nga xamni ne as-samawati moo yekati asaman téenal ko bi xayri amadin ci ludul ben keno taraw naha buñ gis yàlla moo yekati asaman ba ca kaw téenal ko te xamna ni mos lo ñak ñak ñàkk xam-xam war nga xam ni lu dis la asaman fi tàllalu fii ci Afrique ba fa adduna ba yem fa jant bay fenkee ba fa jant bay soowe lii ko ko xool même bu sa loxo laale wuti xam nga ne lu diis la diisaay boobu ak poids bi mu yore yépp fam nekk ca kaw fa la nekk bu wut meetar ba tey bi gayri amadin ci lu amut kenn boo xam taraw na haa da ngeen koy gis borom xam-xam yi dañ ni am nañu ni bi xayri amalin taraw naha mooy amul keno bu ngeen di gis kon mën naa am keno téye na ko waaye dañ kaa gisut waaye loolu dëgërul li gën a dëgër mooy amul keno ndax ñaari yëpp ñenn ñi dañ ni bi xayri amalin amul benn keno taraw naha yéen a ngi nii di ko gis effectivement gis nañ ñu ngi nii di gis te gisuñu benn keno kon amul waaye laaye ji koy gën a dëggal mooy wa yumsiku samaa an taqaa ala al ard illa bi izni yàlla mu ne asamaan si amut keneen bu ko téye man maa ko téyal sama bopp bu ma budd ci kaw suuf loolu moom leer na wa yumsiku samaa ala mu ni man maa tee daanuwut ci seen kaw kon asamaan seeg poids bi mu yoree te xam ngeen ni adduna bi ak nit ni ñuy tabaxee xeetu dal boo mën a defar ci àdduna am na nombre métrage boo xam ne bu fa àggee rek naan fii kat def fi poto boo fa defit poto day màbb même boo ca defee poto am na at yu muy am day fënax commencé màbb ak liggéey ba lu mu dëgër dëgër dëgër ak jamono jii ñu toll lu technologie bi avancé ci wàllu batiment yépp du teere xadd bu ñu def rek am na poto te bu amee poto it nag poto yi daa am fu muy mën a yem ñu écrasé ko seetaat beneen yàlla mu ne asamaan si nag bokkut yooyu ndax ki ko defar mooy ki defar nit allahu sunu borom yàlla alladi mooy ki nga xam ne rafa asamawaati mooy yëkkati asamaan taawu ko téenal ko aj ko ca kaw rafa mooy da koo aj ca kaw bi gayri amadin ci lu benn kenn taraw na ñu ngi nii di ko gis wala ci kër buñ gisut buñ gis ak buñ gisut yëpp amut su summa ginnaaw ca loola istawa mu daal di yemoo alal arsh ca arash daal di fare arash dafaa toog ak dafaa nekk ak nu mu fa nekkeek yooyu yëpp ay yëf yëfaan la yoo xam ne borom xam-xam yi dañuy tere ku ciy moom la imam malik doon wax naan sunu borom day daa yemoo ca arash tiim ko day lu nu xam la melokaan wam ko defee nun réere nañ ko di laaj naka la demee ci biddaa yi la bokk di laaj naka la demee ci mbiri biddaa yi la bokk su sualu anhu biddaa kayfiya ba yàlla rek mooy ka ko xam subhanahu wa taala nga xam ne aras aras akari moo ëpp àdduna téeméeri junni yoon moo ëpp àdduna téeméeri junni yoon kursi yi dikk ni ko dandu ma ndax gis ngeen wasi'a kursiyuhu samawati wal ard gis ngeen fële àllaaxira mu ne wa yaxmilu arsha rabbika fawqahum yawma idin samaniya aras moo tiim lépp gis ngeen yéen sa salaam mu ni barab bi gën a kawee ci ajana mooy firdaws te firdaws ca kawam fa la aras nekk kon daanaka daal ku góorgóorlu ba tàbbi si sa digganteeg sa borom dara doxutu ca yow maanaam amatul lenn luñ lii moom a séparé sama digganteeg sama borom fuñ naan man kat am na àjjana ji ñu ci jannatul xuldi wala jannatul naayim wala jannatul nangam wala jannatul nangam nga doog a àgg fa suñu borom déedéet maanaam yow moom sa digganteeg sa borom daanaka daal aras dafa nekk dong moo ca dox ndax firdawsi moo gën a kawe ca àjjana yo yàlla na suñu borom may na ko bi rahmati fil waasi suñu borom mu ni summa stawa ala al arshi borom bi daal di pare arash gis ngeen arrahmanu ala al arshi stawa arrahman muy ala al arshi stawa ca arash la nekk moom suñu borom xam-xamam nag nekk fépp guddi gu jot guddi gu jot sunu borom dana wàcc ba ci asamaanu benneel ci wàcc gu yeyoo ak màggaayam di wax kuy ñaan ma may ko kuy jéggalu ma jéggal ko bisum arafa nag moom iblis ci jëmmi boppam rot na ci xadis amul bis bu ko gën a naqari bis bu mel ni bisub arafa ndax borom bi tabaraka day wàcc ci wàcc gu yemoo ak màggaayam ba ci asamaanu benneel di goreel ci safara di goreel ci safara di xëccali di nangu ba loolu ci boppam dafay tiitloo iblis ndax day dem ba jàpp ne sax ñii ñëpp kon àjjana lañu jëm kon sawara dootul amati benn candidat bu fa nekk moo tax bis bi ko gën a naqari ci tàkkusaani mooy tàkkusaani arafa borom bi tabaraka wa taala mu ni wa saxara shamsa sunu borom yàlla moo tàggat jant bi wal xamara ak weer wi kullun kenn ku ci nekk ci ñoom ñaar yajri ma ngay daw li ajalim musamman àpp boo xam ni moom lañ ko jox xam ngeen ni ba àdduna sosoo ba tey jant bi mooy jant bi mosuñu koo changé ba àdduna sosoo ba tey weer wi mooy weer wi mosuñu leen changé ba àdduna sosoo ba tey jant mësta génn bëccëg ba àdduna sosoo ba tey jant weer mësta génn jant mësta génn guddi weer mësta génn euh, bëccëg ba àdduna sosoo ba tey borom bi tabaraka wa taala mi ngi def jant baa ngi daw te paanu weer waa ngi daw te paanul kullun yajri li ajalin musamman ku nekk daa ab mooy dox wa shamsu تجري لمستقر لها من ذلك تقدير العزيز العليم والقمر من قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم جسم لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون لولو دف دف سن برام أم كاتن ملا سن برام ني موتا جنت بي أك وير kenn ku ci nekk ma ngay liggéey lu am solo na xam ngeen ni génnug weer wi par guddi ak génnug bëccëg jant bi li muy indi ci ay njariñ yoo xam ni doomu aadama yi ñoo koy jariñoo sunu borom yàlla dong mooy ki ko xam sunu borom mu ni kullun kenn ku nekk ci ñoom ñaar yajiri day daw li ajalim musamman ci àpp buñ ko jox heure sàngam départal heure sàngam sool heure sàngam fenqal heure sàngam sool te nañ ko ko réglé amul tardé noonu lay def borom bi mu ni yu dabbirul amra yàlla mooy réglé mbir yépp yu fassilul aayaati mooy teqale aaya yi ginnaaw bu mu sàkkee asamaan ak suuf sàkk mbindeef yi nit ak jinneeg malaaka mboolem lu mu war a def mu def ko ba noppi nag yu dabbirul amra mooy réglé mbir yi ñi ñoo war a faatu ci at mi ñi ñoo war a faatu ci weer wi ñi ñoo war a faatu ci bis bi ñi ñoo war a judd ci at mi ñi ñoo war a judd ci weer wi ñi ñoo war a judd ci bis bi ñay feebar ñay lakkle ñay dee ñay tukki ñay damm ñay rëq ñay am ñay ñàkk waa sawara waa àjjana ñi war a falu ñi nga xam ne ci seen dund ñoom dañ leen a bind ñu war a falu nekk ay buur ñii dañ leen a bind ñu war a nekk ay baadoola ba faatu ñii danañ man alquran ñii duñ ko man ñii am alal ñii duñ ko am maanaam loo gis ci aduna muy dox rek yu am amra yàlla mooy régler mbir yi moo tax mu ni yasaluhu man fi samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi sha'n waa adduna daal ak waa suuf ñi ngi laaj ci mbirum suñu borom ah moom de xam naa yëf yi moom jaxasoo na lool ndax bu fekkee li bi nekk lépp moo koy doxal mooy taw tooyal suuf si génn gàncax gi rey ñi faatu feebarloo ñi feebar wéral ñi wér di nangu ñaani di nangu julli màkka lu fa dajal luñ bari bari bari xam na ñëpp gis ñëpp ku ca ajam nango kum ca ajut xam na ko kooku day moom kulla yawmin huwa fi sha'n bis bu nekk mi ngi ci ay biir am na benn mufassir bu muy tafsir kulla yawmin huwa fi sha'n mu ne moo tax di xëttile ay nit kee nga ca géej gee xëttiliku tombeeg jamono jooju am na ku nekk ca biir àll ba di xëttiliku tombeeg loolu am na ñu seen avion di waaj a daanu ca kaw ña ngay xëccaliku te amu ci genn xëccaliku kenn kuy dox digganteem ak suñu borom mën a wàllu ji ka ca des te xam nga ne bu doon doomu aadama nag moom loo jàmbaare jàmbaare mënoo wàllu ay mbooloo yu bari tey jii benn sapeur donc buñ ko woon ni ko lakk gaa nga ne mu dem di waaj a fay lakk ga ñu ne ko diw tàbbi na ci biir teen ba moom kay day def fee doog a dem fee rek waaye mu munoo boole ñaar yëpp mbaa ñu woo ñeneen ñu doog a ñëw suñu borom nag kenn la koo xam ni ñiy wooteendoo ñëpp ci benn heure lay wuyoondoo ñoom ñëpp allahu akbar loolu ku amul kàttan mënu ko ku dul suñ borom mënu ko subhanahu wa moo tax mu yu dabbirul amra mooy régler mbir yëpp lépp loo gis mu ni cocc rek suñu borom moo ko régler yu dabbirul amra min as-samaa ila al ard summa yaaruju ilay fi yawmin kaana miqdaaru xamsiina alfa sana gis nga yufassilu al ayaati suñu borom moo ni mooy faram fàcc aaya yi ba mu leer laallakum amaan na yéen nit ñi bi liqaa'i rabbikum ci daje gi ngeen dajeeg seer borom tuuqinuna di ngeen ko am lu wér di ngeen ko gëm allahu akbar maanaam ki doon am ak sikk sàkka ci dajeeg sunu borom ak mbirum àllaaxira sunu borom mu ni yàlla day yudabbirul amra mooy rek mbir rek le mbir yi yufassilul aayaati mooy faram fàcce aaya yi laallakum amaan na ci faram fàcce googu bi liqaa'i rabbikum ci daje gi ngeen war a dajeeg seen borom kër ak àllaaxira tuuxinuuna di ngeen ci am leen wóor nga xam ni kenn dootu ci sëkk sàkkaat ci dana dajeeg sunu borom sunu borom ni wa huwa alladi ba léegi suñu borom yàlla bu loolu doyut yëgal ni moom day mooy ki nga xam ni maddal arda moo tàllal suuf si fi ne asamaan si fu mu nekk rek suuf si topp na ko même boo demoon ba ca biir géej géej géej ga lu mu xóot xóot suuf saa nga ca ron géej ga rek moom moom géej gi moom maam fu asamaan si tiim rek suuf ronu na ko da ko waroon nekk suufas kese wala ma ronu ko géej nekk ca kawam maddal arda yàlla sunu borom moo tàllal suuf si ah wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun wa idal ardu muddat mooy dañ koy tàllal bam ni ñaret nga xam ne noox noox yi doon am léegi fii pant fii loolu dootul amati sunu borom mu ni moo tàllal suuf si wa jaala fiha moo fa def rawaasiya ay montagne dëjee ko ko ay montagne yu xóot ñun nag boo nee ay montagne li ko tàmbalee suñuy tànk di téen jëm kaw la nga xam ñun maanaam ñun montagne boo ko waxee rek dañuy siggi kenn du sëgg dañuy siggi parce que loolu lañ xam waaye montagne yooyu bul fàttee dafa am ay reen ca suuf borom bi tabaaraka wa taala noonu nga gisee ay montagne mu ni du ca kaw ni ay poto noonu la amee ay montagne yoo xam ne noonu la rësee dugg ca biir suuf sa te mooy dëgëral suuf si wal jibaala montagne yi ngeen di dégg mu ni arsaaha ci laa dëgëralee suuf si ba suuf si du bajax bajaxi bu ñëwee ba àllaaxira mu ne wa yasalunaka anil jibaali fa qul yansifuha rabbi nasfan àllaaxira dañ koy sempi suuf si lambax lool neexal lem neex fee jëli kon wa jaala fiha sunu borom moo ci def rawaasiya ay montagne wa anhaaran sunu borom moo fi def ay de ay dex boo demee ci àll ba ginnaaw bu teen jàllee nga xam ne ñun moom lañ gën a miin am na rakki teen ñu koy tuddee siyaan am nag dex am naw xur nga doog a ñëw ci géej aw xur akuk dex ñoom ñaar ñëpp ku nekk rakk la ci géej géej ko gën a foor gën koo yaa saa bu ñu nee anhaar rek mooy ay dex waaye suñ ne baxr mooy géej sunu borom mu ni maa fi def ay sew nde di ay dex wa min kulli samaraati mboolem fruits yi nga xam ni doomu aadama yi dañ koy soxla jaala fiha zawjayni suñu borom def na ci ay peer ay peeri peer allahu akbar zawjayni isnayn ñaar ñaar xoolal ci àdduna mboolem xeeti fruits yi nga xam ne dañ koy mën a lekk yii dañ koy lekk mu ànd ak i xobam yii dañ koy lekk mu ànd ak i xottam yi ñu koy lekk du ànd ak i xob yi ñu koy lekk du ànd ak i xottam waaye façon yooyu li ñuy bari bari bari bari borom bi tabaraka wa taala nee na man maa ngi ko fi def limon yeeg mandrin yeeg pamplemousse yeeg orange yeeg banaan yéeg pomme yéeg raisin yeeg grenade yeeg gerte tubaab yeeg konkorong yeeg madd yéeg daqaar ak lépp loo xam ne doomu aadama da koy jëfandikoo rek sunu boroom yàlla mu ni jaala fiha zawjayni ithnayn yàlla mooy ki ko fi def yemul ca loola yuxsi layla mooy dugalante guddi gi ak bëccëg gi yuxsi layla mooy dugal ci guddi gi annahaara ci bëccëg bi léeg-léeg guddi gi dugg ci bëccëg bi gis ngeen heure julli fajar léeg mu yéeg léeg mu wàcc gis ngeen timis léeg-léeg mu yéeg léeg mu wàcc lu waral loolu dafa am jamono ju ñuy toll guddi gi mooy gën a gudd bëccëg bi ñu am jamono joo xam ne bëccëg bi mooy gën a gudd guddi gi ñu am jamono joo xam ne jant bi day teel a so am jamono ju muy yeex a so ñu am jamono ju muy teel a penk xam ngeen ne léeg boo jullee fajar daanaka jàkka ji say bàqi sala balaa yegg sax boo génnee seen jant bay waaj a génn léeg-léeg di fajar génn dem tëddiwaat lu yàgg jant bi doog génn loolu mooy yuxshi layla nahaar dañuy duggalante ñoom ñaar sunu borom ne inna fi dalika nekk na ci lii ngeen dégg la ayatin ay kéemaani sunu borom li qawmin ñeel aw nit woo xam yatafakkaru na ñoom dinañ xalaat maanaam ñi nga xam ne ñoom dinañ xalaat daal buñ déggee lii daañu xam ne lii jëfi ko am kàttan la muy sunu borom sunu borom ni yemut ca loola de wa fil ardi def na ci suuf si qitaaun ay daggiti morso yoo xam ni mutajaawiraatun dañoo dendee te bokkuñu aka wax dëgg loolu moom baykat yi ñoo ko mën a xam boo demee ca àll ba dafa am barab bu ñuy tuddee joor ga joor ga mën nga faa def gerte mbaa dugub mbaa léeg nga def fa yu mel noona am na ñu fay def ñam bi nag léeg-léeg waaye yooyu moo moo ëpp lu fay am am na lu ñuy tuddee xurwa aw xur moom boo seetloo mboolem xeeti bay yi pataas pombiteer ñaam bi xeeti yëpp yi nga xamante ni laaj na ndox dëgg ci xurwa lañ koy gën a taamu nga gis am na yeneeni barab bi nekk fee nekk ban fii nekk suuf su nooy fii nekk suuf su dëgër fii nekk ay janji yàlla mu ni qitaaun ay daggiti suuf la yoo xam ni benn bokk caag ca morom mutajaawiraat te ñoo ngi ñu ngi dendee li gën a yéeme mooy dangay ngay ak nit sa tool di joor toolam di xur lu gën a yéemee ngoog nag mu wóor la ni tool bii lii la gën a nangoo bay tool bee lee la gën a te yéen a bokk wenn dikk bu ngeen sampi salaat nga xam ni kon loolu kéemaan suñu borom yàlla tabaraka wa taala bal sax nag al ajab min dalik da gis benn tool benn tool genn wàll gi nekk aw xur genn wàll gi nekk ak joor wala lu ni mel mooy xitaa mutajawiraat dañoo dendee nga xam ni xeeti suuf yi ñuy bayee bari na lool baykat bi xam ni fii la nangam gën a nangoo fee la nangam gën a nangoo loolu kéemaanu suñu borom la goo xam ne yàlla moo ko def gis nga da ngay gas teen suufas kese ba kero ngay gis ndox nga gas teen kew génn nga gas teen suuf su weex nga gas teen ay xeer génn nga gas ila axiri leeg ngay gas teen sax ay ci weñ di génn ci weñ te loolu lépp qitaamu tajaawiraat bal sax nag al aajab min dalika aydan da ngay gis benn waay gas fii ab teen juróom-ñaari mètre mu am ndox nga dem fële gas fa juróom benn fukki mètre doo am ndox ñu bari dañu yaakaar ni soo amee fii ndox rek mooy wane ne tuyau bi déedéet yooni ndox yi ci suuf si lu yéeme la da gis yoonu ndox wu jaar fii xóot ba mu yàgg mu siggi tuuti doog a jàll mu siggi tuuti doog a jàll fa mu toll fu siggi nag mën nga faa gas tuuti rek am ndox fa mu toll fu sëgg mën ngaa gas ba jàpp ne fii dootuñ fi amati ndox te même benn barab bi la ñaaral bi mooy dafa am zone yoo xam ni ndox ci boppam dafa wut dafa noox gis nga sunu zone bii jëm àllub kaañ jëm jëm ñaajo jëm ci àll boobu noonu la noonu la mel man nga faa gas ay meetar yi meetar yu bare bare bare doo ko am ndox nga gis yeneen i barab yoo xam ni lu gàtt ngay gas rek xaw tuuti kon nga yam ci seyaan am ndox loolu lépp kéemaani yàlla yi la bopp moo tax mu ne xitaa ay dajjati suuf lañ yoo xam ne jaawiraat am na barab yoo xam ne maçon bi su ñëwee di fa tabax moom day fàkk fàkkal rek teg ab seesam rek bétonné daal di tabax waaye am na barab yoo xamante ni boo ko fa defee bu soobee yàlla boo sàggantut balaa ngaa wàcc yow bâtiment bi fekk si la lu ko waral suuf sa band la lu ko waral suuf sa day yëngatu lu ko waral suuf sa daan taati àll dafay ba jax ba jaxi yooyu yëpp ay xeeti yëpp yëppaan la yoo xam ne borom bi tabaraka wa taala mooy ki ko def lii nag ki koy seetlu dana xam ne ki def lii muy dalika taqdirul aziz al alim ki xam te man ci am kàttan la muy suñ borom nee na wa fil ardi am na ci suuf si qitaaun ay daggiti suuf yoo xam ni mutajaawiraat ñu ngi dendee te bokkuñu wa jannatun ay tool yoo xam ne min aanaabin ay raisin moo ca nekk wa zarun akum mbay ak lu ñuy bay raisin moom boo seetloo suñ borom tudd na ko lu bare bare bare ci alquran ak bari njariñ nag ci wàllu wér-gu-yaram bu wow baag bu tooy ba yépp ci bokk yam benn bu ci nekk ay njariñ la fees dell ak doomu aadama moo tax boo seetloo sunu daanaka ca suuratul naba eeg saar wi eeg feneen ak feneen ak feneen yépp sunu borom di ko ay tool yoo xam ne min aanaabin ci ay raisin la wa zar'un lu ñuy bay yii séeñam meññante ca suuf sa lay nekk ñàmbeeg carotte ak pataas ak naweeg yooyu yii ak meññante ca kaw lay génnee ñebeeg ila axirihi ak dugub ak mboq ak baseeg beleeg suunaak ila axirihi borom bi tabaraka wa taala mu ni wa naxiilun ak ay garabi tàndarma yoo xam ni sinwaan yu ami banqaas sinwaan yi day ami banqaas wa gayru sinwaan yi amuli banqaas yu am banqaas ak amul banqaas mooy da ngay gis garab goo xam day commencé rek ami carab sunu garab yu bari màngo yeeg gerte tubaab yeeg garanaat yeeg limon yéeg yooyu yëpp gis ngeen sinwaan day am ay bànqaas wa sëñ waan am na yoo xam ne moom datt bi tronc bi datt bi mooy génn rek bu ko jëm asamaan tàndarma ci la ak ban koko kooni hmm? tiir gis nga xeet yooyu mooy xayru silwaan mooy yi nga xam moom amul bànqaasam day buddee ko rek jëm asamaan fi ne garab yooyu nga xam ne dañuy buddee ko jëm asamaan néew na néew na nga gis genn garab bu ci def ñaari car loolu léeg-léeg moo am na léeg-léeg moom léeg-léeg nga gis garab gu mel noonu def ñaari car wala ñetti car sax nag waaye loolu du lu maam loolu saa boo ko gisee rek jàppal ni keroog gis nga kéemaan waaye lañ xamal mooy sënwaan wa xayru sënwaan gis nga kon borom bi tabaraka wa taala ni mu koy faram-fàccee nee na yusqa ñi ngi leen di nandal bi ma in waaxid ci mennam ndox li saf kaani lii forox lii lawet lii lii lii saf suukar lii lii forox yooyu yëpp ay xeeti yëpp yëfaan la gis ngeen saa ne nee forox rek am na xeeti firi bu nit ñi dem saa boo nee saf suukar am na xeeti firi yu ñuy dem saa ne lawet am na yu ñuy xalaat lewet comme lan lewet garab gu lewet nawet dafa lewet tol nu mel nag tol ah tol dafa forox madd madd ah mango madd madd laa wax avocat avocat ñun xamuñu loolu de avocat làkk tubaab Sénégal yi ah ah avocat dafa lewet waaw dama ne avocat baat bi xam naa ne ñun miinuñu ko lool ndax tur wi sax wolofewul am na tur yoo xam ne ñoo ko wutal suñu bopp waaye am na tur yoo xam ne dañu koo indaaleel bi muy ñëw gis nga saa boo nee saf suukar am na lu ñuy xalaat soo nee saf kaani am na lu ñuy xalaat borom ba mu ne yusqa bi maa il waahid mel na ndox dong laa leen di nàndalee te yéen a ma gën a xam ne baykat yi ndox mi ndoxum yàlla moo tax mel na ndox la ñuy roosee de waaye garab gu nekk du nañ koy liggéey la ñuy liggéey ma ca am na loo xam ne bala nga kaa bay da ngaa fumier suuf si am na loo xam ne bala nga kaa bay da ngaa engrais suuf si am na loo xam ne bala nga koo bay da ngaa euh, nu mu tuddati rey max yi nekk ci suuf si am na loo xamante ni soo ko bayee pare maanaam façon lu ne dañ ko def waaye borom bi tabaraka taala loolu lépp du ko ci def moom yusqa bi maa il waaxid te li lay wan ni gis nga mbayum nawet mbayum noor ni ci nit di sonnee du sonne noonu ci mbayum nawet xam nga lu ko waral mooy ndox mi juge ci asamaan si lépp lu war a produit garab yi da koy indaale subhanallahi alazim loolu nit ñi sax ñu ko seetlu boo seetloo moo tax yërmande jooju moo waral fi ne sooy génne azaka ci li nga bay nawet ak looy sooy génne azaka ci li nga bay noor duñ bokk noor bi nga xam ne yaa doon bay te jot nga cee produit jot nga cee sonn jot nga cee roose jot ngaa jukki ca teen ba wala essence gasoil ba nga doon jël ca eh, nangam ñu ne waa fayeeku ko ci waaye bu dee nawet nga xam ne yàlla moo doon taw moo indi produit ba moo indi lépp donte produit nga sa produit bopp it moom yow sañu bopp waaye daal nawet moom suñu borom dafa yéeme lool dafa yéeme lool fan yi passé damay romb ci yoonu ma séen benn barab boo xam ne xam naa tiwo tiwo moo fa toj waaye gis nga barab ba la fa sotteeku ci ndox yaakaaruma yi nawet sax dana taw ba taw ndox sotteeku foofu ndax ndox ma dafa bari biñ ca tegee ay fan ma jaaraat fa gis ñax mi tàmbalee sax ma ne li lay wane ndoxum taw ak ndoxum ndox suñ ndox yi bokkuñu ndax fii li fi tuuru ci ndox bu doon am nawet la fa tuuru boo fa jaaraatee su waayu nagee man faa sàmm waaye ba léegi ay fépp fepp yi ñax nga fay gis yu lay wan ni gaa day wane ndox jaaroon na fi rek waaye mii ndox moom ingrédients yi bokk ci ndoxum asamaan si moom amu fi moo tax moom wa nazzalna min as-samaa'i maa'an tahuura ndox mu laab ndox moo xam ne la mu war a àndal ci ay produit la mu war a àndal ci ay njariñ la mu war a àndal ci subhanallah lépp da cay àndaale moo tax yàlla tuddee ko ma an mubarakan moom daa barkeel parce que bu ñëwee li nga soxla lépp la lay defal sunu borom ne yusqa bi ma in waxid men nam ndox rek moo leen di nàndal wa nufaddilu baadaha dañuy gënale lenn la ala baadin ca la ca des fil ukli ca lekkin wa am na yu gën a neex am na yu gën a neex yeneen ya nufaddilu baadaha ala baadin fil ukul mooy li ma doon wax sànq rek am na yoo xam ne même même même benn façon bi sax banaan rek banaan rek nga xam ne dañ koy importe ci adduna bi am na xeeti banaana yoo xam ne yii mooy gën a dijji ci des yee mooy gën a sew yi waxuma ne sax nga doog a ñëw nag ci lu wuuteeg moom même benn meññeent benn fruit bi rek yàlla neen nu fadlu baada ala baadin fi ëkkul am na yu gën a neex yi ca des gis ngeen xeeti pomme yi daa verte yi daa xaw a verte yii nangam dem nañ ba léegi sax am na li gën a am na xeeti pomme yoo xam ne sax pour ñu jabet la faf pom yoo xamante ni ko suñ borom bindee lañ cay non subhanallah yàlla ku yéeme ay mbir si su ne boo demoon ci jaaykat léegi léeg am na boo yëkkat ñu la ah, bii kat pour ñu jabet la gis nga ci loolu lépp def defe suñu borom da ngeen yaakaar ni ñun ñoo defar ab pom boo xamante ni pour ñu jab déedéet yàlla moo ko defar subhanahu wa taala wa nufaddilu baadaha ala baadin fi l ukl mooy am na yu gën a neex ya ca des xeeti mango yii ngeen gis rek kadalik yan tur ngeen xam ci turu mango yi Birane Diop eh boobu de xanaa bëgg nga ko de yow ni nga ko tuddee gaaw na de kent am na kent moom dañ koo dañ koo dañ koo pikir dañ koo <laughs> pikir ba mu soppeeku bu ko jeexal am na ah loolu mooy lan papaye am na Birane Diop am na bu ko jeexal am na jeeg bu gàtt am na gereebal am na sewe am na bari na de affaire yi bari de boo demoon ci àll ba fi mu nekk nii nun ñu nekkoon ci àll ba yëf yi day bare bare bare même mango bu ñu tuddee mokkata sax am na mango bu neex la dafay tuuti nag comme ab teng si lay tool ab teng si sax léeg moo koy gën a rëy xoolal yooyu yëpp te benn bu ci nekk am na xeetu cafkaam goo xam ni rabbu samawati wal ard yàlla rek mooy ku màgg gis nga boobu ma lay wax noonu naan la bu ndaw la fi mu nekk nii boo xiifoon dëgg-dëgg daanaka fanweeri mango mën nga ko ci lekk fi nga toog benn place tuuti na neex na maanaam ñi ci daje dafa bari ba nga xam ne yow da ngay xam ni lii borom bi tabaraka wa taala rek mooy ki ko man moo tax mu ne wa nufaddilu baadaha ala baadin fi l ukul même ci ñam ci da dangay gis ñu ni ñambi bii gaaw naa ñor ñambi bii gaawut a ñor ñambi bi boo ko rotee ci lay gën a baax ñambi ji boo ko toggee ci lay gën a baax loolu dafa am ci xeet yi ñambi gii ci jur gi la gën a baax ñambi bii dafa dëj yooyu yëpp ci xeetu benn benn benn firwi kadalika salaat gis nga li ñuy naana kadalika yeneen yeneen yeneen bari boo ñëwee ci dugub dugub basi dugub suuna mboq ila axiri xeet yu bare bare bari moo am gerte gerte kemb gi gerte furi gerte numutulati gerte gu dijj ga gerte gu sew gi xeet yu bare bare bari maanaam boo ñëwee ci lenn loo dem rek day gën a firndeel li suñu borom di wax wa nufaddilu baax ala baadin fil ukul boo ñëwee ci ñebbe noonu kadalika boo ñëwee ci mboq kadalika ila axiri suñu borom ni inna fi dalika nekk na ci lii la ayatin ay kéemaani yàlla li qawmi yaqiluuna ñeel nit ñi nga xam ne ñoom am nañ xel wallaay ko am xel di nga ci jariñu mu ne wa taa taajab bu dee da ngaa yéemu nag yow yonente bi sallallahu alayhi wasallam fa ajabun qawluhum ñoom da lan doon wax gën naa yéeme fii nag borom xam-xam yi ñenn ñi dañ bu fekkee yow yonent bi saa sallam yaa ngi yéemu ci kéemaan yii yàlla def dëgg la jër naa yéemu de waaye fa ajabun qawluhum ginnaaw bu lii lépp leeree de ñoom ñu koy weddi ñoom seen i mbir yéeme am nañu ne wa in taajab su fekkee da yéemu ci weddi giñ lay weddi xamoon nañ yow yonent nga yonent bi yàlla nga ku baax nga ku dëggu nga ba pare ñu weddi la loolu day yéeme na waaye ñoom it day wax dëgg yàlla weddi gii ñu weddi lii may bëgg a wax it kéemaan la kon benn bu ci nekk ay borom xam-xam wax na wa in taajab bu dee yéemu nga ci def defi suñu borom yii te jar naa yéemu mu ni fa ajabun qawluhum yéeme na lool seen kàddu yañ doon wax naan a ida kunna turaban moo ndax bu buñ suppalikoo nekk suuf ba seey a inna la fi xalqin jadid moo ndax dinañ dekkiwaat maanaam allaaxira daal bu ñu leen suulee bañ seey est ce que dinañ dekkiwaat nekkaat ay nit ñu naan dañuy àtteeg yooyu yëpp loolu moom doomu aadama yàgg naa laaj laaj yi ni mel waaye loolu laaji ku weddi yàlla sunu borom ni ulaayika ñooñee alladina kafaru ñoo ñi weddi sunu borom alladina kafaru ñoo weddi bi rabbihim ci seen borom wa ulaayika ñooñee al aghlaalu ay jéng day fii aanaqihim da tege ci seen ndodd yi jéng yi nag nekkagul jéngi safara boroom xam-xam la wax ni fii la ci àdduna ndax xam nga doomu aadama bi nga xam ni dafa dañu dañu mel ni ku ko jéng ba mënta dox jëm jàkka ja mënta dox dem ci lu baax mënta dox julli ji jumaa mënta dox topp alquran kooku dañ koo jéng xam ngeen nit boo ko jëloon jéng ko yeew ko fii ci poto bi ñëpp mën nañoo dem bàyyi ko fi moom du dem kon al aglalu fi anaaqi mooy dañ leen a jéng ba mënuñoo baax moo tax it jéng yooyu ay continuer bu ñuy dee rek ñu tekki yooyu takkaat leen yeneen yu gën a dëgër tàbb leen sawar mu ne wa ulaayika ñooñu nag asxaabu naari ñooy waa sawara hum fiha xaalidun dañ fay sax dàq duñu génn yàlla na borom bi tabaraka wa taala musal ñu ci am يالنا سونو بروم borom لو سي اي خيوالم اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين